dañu ci daj lu ne ñii gaañu ci ñi ñàkk ci seen bakken ñii ñu tëj leen ci kaso mhm. donc ñoom bu ñu bëggee tey jii rek daaneel système bi nga xamante ne moom moo fi nekk te li mu fi jot a def ñu ci ñu ciy liggéey ñu am ci ay résultat ci ñoo xam ne def nañ fi ay at te réussir uñu ko mhm. <laughs> mais duñ leen bàyyi ñu gouverner aussi simplement ay aussi facilement mhm. ci ndaw ñi rek lañ ko mën a jaarale pour mën a yàq seenub liggéey donc yàq diggante bi nga xamante ne moom moo dox ci Ousmane Sonko ak ndaw ñi. Mhm. loolu pour man mooy seen yitte donc gëm naa ni Abbas Fall ci benn côté wax na ci dëgg sans pour autant nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa. Euh, taxawu Dakaaru mhm. mais de manière générale gëm naa ni mbiri politique da cee rax ndax danoo bëgg yàq ak salte liggéey bi nga xamante ne moom la état bi di def jamono ji. d'accord Saa Wolof euh, immédiat dama gis benn publication mu ne euh, guerre entre Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall. tu te rends comment ils peuvent dire des choses comme ça c'est basé sur quoi c'est-à-dire bi ngay wax noonu immédiat loolu ñoom ñal fan lañ ko teg immédiat am nañ lu leen doy immédiat mm-hmm. li ñu war a lijjanti mooy seen assemblée générale yi ak seen manque de paiement de salaire yi mm-hmm. ñoom ñi nga xamante ne bi fi Macky Sall doon nekk ñu ngi doon doxal nice mm-hmm. di liggéey nice di fay salaire nice Macky Sall wàcc même part 3 mois ñu am problème impôt am problème salaire kon ñoom lan lañ doon fonctionner boobu ba tey du ñu lijjanti loolu. Mm-hmm. lu ñuy xëyee di wax yenn poste yu grave yooyu diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko te leer na ma ne Ousmane Sonko bu gë bu mu gëjee jëflante Khalifa Ababacar Sall yàgg na. Mm-hmm. ñooñu mbiri politique moo leen tënkoon yafee en compagnonnage ñu ngi woon ci biir yeewi askan wi. Mm-hmm. yàlla def na ne yeewi googul dem nañu ci ay jamono ba ku ne bëgg wayul boppam. les gens ont apprécié nu leen neexee. taxawu Dakar man rafetlu wu ma woon position bi ñu amoon ci yooyu la jamono. Euh, mais loolu c'est à leur appréciation propre askan wi moo àtte. dem nañu ay élection Khalifa bokkul sax ci podium bi maanaam yéegul sax ci podium bi. Mhm. il n'est même pas ci podium bi maanaam premier deuxième troisième. waaw ñoom ñii dañ leen a dóor ndax résultat ba ñoom ci 54 pour cent ya. Mhm. nagam Amadou Ba la ñu làpp ba mu nooy waxuma la Khalifa mu nekk ci ginnaaw a a ginnaaw a ginnaaw. d'accord donc. pourquoi vouloir créer une polémique bu bees. Mhm. boo xamante ne ci wàllum politique Sénégal daan amul leen lu duy def lu dul sos lijjanti ay mbir même bu fekkante ne am na léegi après lan moo ci intérêt sénégalais xalifa mhm. Khalifa Sall boo amee problème ak Ousmane Sonko et après daf ñu tere lekk daf ñuy tere naaw daf ñu tere avancé. je pense qu'il faut être sérieux quand dans les titrailles ñu def attention bu baax ci li ñuy def nii parce que lii amul njëriñ mhm. ñu jéem a gëstu ci li askan wi soxla tey joxe la bonne information te liñ jënti seen impôts yi ak seen salaire yi ñu fayu d'accord euh, Saa Wolof Bamba Fall maire mhm. Médina moom itam damaa siif euh, non non non yow yow foo jaar yoon la d'accord Bamba Fall génn na moom itam mhm. euh, ne moom dem na sax bay dàkkantele gouvernement bi ay pyromane ne moom du du du du ànd ci li nga xam ne moom lañu ñu def mu di déggee Prisma dafa lànk kandaare ndax bi mu ko bëggee def dañ ko ko xañoon Euh, tey bu ñu bëggee euh, tey ji jox ko police jox ko gendarmerie pour mu déggee pire ñi nga xam ñoo di marchand ambulant te solo lañu waa Médina nee na moom du ko def nee na il préfère moom dem ci beneen méthode mooy waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci euh, ñoo marchand ambulant yi pour trouver solution naka nga jàngatee sorti Baba Fall non moom les politiques nag wax dëgg yàlla dafa xaarañ xaj na nag bon ak yooyu parce que tamit loolu moo wax hmm. xam nga tey ñii ñuy wax lañ njëkkati est-ce que ñi leen doon yëkkati ñan ñoo ci doon xam nga boo mbir mi faaw ñu xool ko. Bamba noonu laa amee équipe bu ko doon yëkkati man fekkee naa fii bés booba ci suuf Macky mm. sax la ay nit waa këram di yëkkati booru rond point Médine mm. ak yooyu keroog niñ toroxale waa ji kuy yor euh, ay lunettes moom mi ngi euh, gàddu mbir mi di dugg. Mm. mais doo ko bàyyi. mais dañ ko dab daanaka pàdd waa ji sama kanam. par pratique yu mel noonu moom la Alioune Ndoye nekk di def. Dakar ak équipe bi mu àndal muy ay civil li ma gëm mooy police yooyu ku ci war a yëkkati am yëkkati yéene yëkkati boo bindee da nga war a dem ci police ñu jox la policier yooyu policier yooyu nag dañuy am perte mi ngi mel bu ñu leen yóbboo ci làmb ji wala ñu yóbbu leen feneen ak feneen ak feneen noonu lay demee transport yooyu noonu voilà dañ dañ dañ dañ koy am hmm. te loolu tamit dafa war di am loolu noonu bu amee ñu coordonné kon léegi euh, déjà ah, takk der bu taxawee rek réaction bi jaaykat bi di am bokkut ak ki nga xam ne civil la ni moom di ko dindi. Mhm. moo tax lii mu wax nii dafa buruxlu buruxlu politique moom it li mu wax tegewul fenn mais da ngay xam ne dafa nekk di politique pour exister. mais bon lan moo tax nga man nag ndax moom jàpp na ni non man nag <laughs> njëkkoon naa def demande pour def déguerpissement ñu ñu lànkal ko loolu waaw d'accord mu def déguerpissement jox ko police ak gendarmerie ay kàddoom la non waaw non loolu man daan na wax te man xam nga ku daan wax di wax lu dul dëkk te kilifa mën naa jël say kàddu def ko foofu di la jàpp ku ci profité xam nga moom ba nga ni ci coow li sax déggoo ko ci. Mm. politicien moom li muy bañ mooy nga fàtte ko. Mm. moo tax barte mi ñi ciy tudd te defu ci dara wax dëgg yàlla laalu làmput ñu ko ciy tudd dama ko cee teel a génne. beneen muy barte foofu sax laay waxee euh, ak Abbas d'accorduma ci trop trop ci li mu waxee. Mm. parce que déjà Bart moom dafa am am lan teg yoon buñ ko tegee ci yoon rek day perte ndomba yi mu am ci maire bi da koy am feek fi léegi ku mel ni ko après. danañ nàngam léegi bu loolu demoon ba am tey te loolu lu justice dogal la ñuy xaar bu loolu demoon ba am tey mais Bart mën naa taxaw ne ñi ñoo nekk sama ginnaaw bu ñu indee waxi Abbas Fall yi day daal di day tey xel. Mm-hmm. moo tax am na foo xam ne boo fa yeggee gis nga boo yoree caq bi amatul sens. Mm-hmm. nga mel ni koo xam ne bi ngay opposé wala yu demee noonu. dafa war a xoolaat taxawaayam comme ni nga xamee noonu la maire yi war a taxawaat te li mu leen wax it dëgg la am na ci maire yoo xam ne dañuy buruxlu mm-hmm. mais nañ ko yemale ci ñooñu xam nga nooy bëgg la mm-hmm. muy diggante maire la nekk ci Kër Massar la muy def du yomb mm-hmm. ci ñett ñooñu la en tout cas gisuma feneen tëngéej ña ngi fay dégeer pile mais nit ñi amewu amuñ lu leen naqare ni mu leen naqaree Kër Massar wala ni mu leen naqaree Plateau wala ni mu leen loolu kon nit ñi dañoo war a jàngat maanaam bu dee euh, Dakar fukki maire la ak juróom-ñeent waaw léegi lan moo tax fukki maire ak juróom-ñeent ñaari meer képp nga ci dégg mu am coow. Mm-hmm. ñu am lante ak ñi ñi nekk. pourquoi pas ñeneen ñi loolu déjà jàngat la. Mm-hmm. léegi li tax yow tey bu dee Bamba Fall li mu wax. moom jóg moom problème moom dafa impopulaire fi nit ñi parce que problème bi mooy mooy am na foo xam ne kiiwul léegi nag man du ma nangu li ma bëgg fi ma bëgg a yóbbu man la du dugg ci pax mi ba pare man la fay fekk di la jox loxo ah, non non dama koy conjuguer au passé bamba dafa bëgg nga may ko bés du du ko am wax dëgg yàlla am sama kàddu yi am na ci leneen loo xam ne falaa koy waxee en tout cas li may wax rek mooy Babacar euh, <laughs> kii lay Abbas Fall li ma doon gën a wax mooy ci côté organisation bi na ci fëgg focus mm-hmm. ba liy war a jot jot su municipalité yi ubbee campagne bi ubbi mu campagne bu ruxlu bi ni ma koy bañee feneen noonu laa koy bañee ci moom mm-hmm. moom it na bàyyi ba gaa yi soufflé na bàyyi bu bi d' accord d' accord euh, ñu jàll nag jëm ci euh, ki nga xam ni moo di nag euh, président bu Agir di Thierno Bocoum Mami mm-hmm. sorti bi mu def tey dafa mel ni dafa daal di rek dal ci ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko xamal ku nekkul ci yoon te amul le poids pour euh, tenir li nga xam ne moo di poste première ministre bi li euh, ngi doon wax nag jëm ci déclaration de politique générale ak ultimatum bi nga xam ni jox na ko député yi nekk assemblée nationale naka nga jàngatee sortie euh, Thierno moom moom moo amul poids pour nekk opposant moom Thierno Bocoum. te moom li dal Bamba Fall rek daanaka da koo xaw a ñamaale tuuti déedéet xam nga boo bëggee boo bëggee siw da ngay tooñ ko siw <laughs> xamoo woon loolu. xamoo woon ne boo bëggee siw da ngay laal ko siw da ngay tooñ siw pour nga mën a siw. Mm-hmm. Thierno c'est dommage nit la boo xamante ne am na xam-xam te xam-xamam mënoon na jëriñ réew mi bu fekkoon il avait choisi lu bon camp ci waxtu ba mu ko waree de pourtant Thierno de ci élection yi passé bëggoon naa jéem a natt boppam da koo leer ne amul doole bu mu demee mu toog kon moom ban